Aminata Dieng journaliste à la RTS Thiès. waaw journée tey jii dafay marqué huit mars di euh, journée internationale de la femme. lii nag mu di loo xam ne xalaatu euh, jigéenu RTS la ci seen kuréel gi ñuy woowee FABES euh, waa RTS yëpp nag fas yéene ren ji ne dañuy màggale 8 mars don de sang euh, ñu décentraliser ko nag ci juróomi région juróomi région yooyu cees bokk ci Thiès nag lëkkaloo ci ak banque de sang bu hôpital régional bu Thiès ngir amal journée bi. en tout cas au niveau de Thiès dañu gis ne que euh, don de banque de sang bu hôpital régional euh, dafa di euh, banque boo xam ne tout le temps day déficitaire ndax Thiès dañu nekk ci ville boo xam ne four la ñi mu polariser moo bëri te day doon yoon boo xamante ne accident de la circulation yi da ciy bëri te tamit ci wàllu accouchement ñi muy jël prise en charge dafa bëri moo tax banque de sang bi di soxla deret bu bëri loolu tax na ñu bëgg leen jàppale indi ci suñu apport ngir jàppale leen ba ñoom ñu seen banque de sang Euh, nit ñi moom wuy si nañ ci suba si bu baax a baax gis nañ ne que corps yëpp presque ñëw nañ muy militaire yi sapeur pompier association yi nga xamante ne ñoom ñoo di famille yi gis nañu itamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay bonne volonté ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di fan club bu euh, animatrice ak animateurs yi nekk ci RTS bi yëpp ñëw nañu bokk ci li nga xam ne moom moo di don de sang bi li nga xam ne itamit nag moom moo di suñuy perspective moom moo di ne bu doon suñu sago ñu gën a dugal suñu loxo ci geste maanaam social euh, ndax doon na loo xamante ne daal dina jëriñ ñëpp ñun suñu bopp sax mën nañ ko soxla ëllëg man la maam Alassane Sylla maa ngi régional fii bu Thiès assistance sociale la fële ci banque de euh, waaw léeg-léeg <laughs> balaa maa tontu leen dana bëggoon gërëm dana directeur hôpital bi mi ñu ko yombal surtout ko ci di remercier directeur euh, RTS bi Thiès comme ndax euh, bu ñu gisee ay nit yu mobiliser <laughs> ay ay travailleurs mobiliser pour pour dimbali euh, seen mbokk malade yi nekk ci biir hôpital bi duñu mën leen ci gërëm di leen ci sant bu baax ndaxte journée bi c'est dédié à la femme euh, te te bu ngeen ko seetloo lu ci bari saa bu bari femmes yi ñoo ko gën a soxla. boo seetlu boo demee fële mu maternité presque ñoom ñooy consommer mo poids de sang yëpp léegi bu ñu gisee seen moroomu jigéen yu leen dimbali di leen jàppale surtout une station de rajo aussi mu ne duñ mën di leen ci gërëm di leen sant bu ba actuellement am nañ euh, juróom fukk ak juróom benn mais dañu mujj sax arrêté ndax nit ñaa ngi doon ndax naaj bi dafa xaw a tàng. non li ñu koy faral di am <laughs> bariwul nag ci nga xam nga Thiès moom mën nañu wax ni duñu maye deret moom. mais ay plus de cinquante rarement nga koy am des fois ay des fois nga dem collecte ay trente nga am ay vingt cinq yooyu moo tax vraiment nañ ci mobiliser bi mobilisation bi trop. bi naka waaw geste bi moom warul tax buñ sañoon chaque jour chaque jour am ñu jóg pour organiser activité yu mel nii moom ndax déficit bi moom fële mais si mu ñu ko couvrir ndax demande bi am fële moom forte na ba nga xam ne ay ay doole saa yi chaque jour moom dafa war di am fii cees